cher jentenet yu enquête 221 dal leen jàmm dal jàmm ci li gën a fës ci ëttu yëglekaay yi ñu commencé ko critique yéenekaay mi del soit ci juróom benn million doomu aadama yi nga xamante ni ñu ngi dund ci pauvreté yéenekaay bi li ñu xamal ne Sénégal fi mu toll ni na ay loxom teg ci boppam ndax ñàkk gi ni fa méttee waa Sédhiou moom ñoom ñoo remporté trophée bi xiif nañu mar nañu lottu nañu yéenekaay bi del soit ci càmbar gi nga xamante ci

mënul ko bi dellusiwaat tam ci dossier trafic de faux passeport diplomatique yi nga xamante mu ngi lëmbe réew mi yéenekaay bi dellusiwaat ci cerveau bi nga xamante ni jàpp nañ ko moom ci ay député toll nii ñu indil Sénégal gii ndaxte ñoom seen jëmmi bopp fa leen ba ñu amoon dañoo wàccee seen bopp ba ci suuf yéenekaay bi ci seen dossier bi nga xamante saa su nekk am lu ci bees fi toll nii ñu ngi càmbar financement bi ñeel mouvement bi ba mu juddoo ba dañoo daanu ba xalangu Mamadou Sy Albert ci bi xam le ne gis nga membre Y a marre yi kenn mënu leen a xaajalee ak seen mouvement bi di Y a marre ndaxte ñoom ñooy dox ak a wax ci turu mouvement bi kon nag nañu mel dong la mouvement bi mel réew mi quotidien di ko dëggal ne waa Y a kay fi mu toll dañoo dugg ne ruba ndaxte parquet bi wóolu na kilifa ak Simon yéenekaay bi ne xalam demoon na bay neex waaye fi mu toll nii bu nga dog na si ni ku koy dëggal ne lépp nag jarul xalaat Macky Sall nekk ca nga xamante ne ab am la yor rek di dagg bopp ko ci Sonko ak coowu Adji bi nga xam ne taqal na deram tey ji ñuy wax mbiru kilifa ak Simon Thiat ñu leen di jiiñ mbiru trafic de passeport diplomatique ak coowu oto bu ñu sàcc lépp ngi ci biir yéenekaay bi yéenekaay ñu xamal ne gis la mu xamal ne Alpha moo di duma mës a signé sama démission te pour tënk wax ji rek ngeen jël sama bakkan moo gën a yomb ma démissionné yéenekaay bi dellusiwaat ci jafe-jafe nga xamante ni mu ngi

yéen kaay bi di xam ne ne gars yi bokk ci benn bokk yaakaar gis nga xaajaloo gi opposition bi xaajaloo seen coalition yu bari yii wallaay arrangé wu professeur Moussa Diop bu UGB di xam ne ci biir yéenekaay bi majorité bi dong ñoo ci am avantage de ñoom li leen waroon waa opposition bi moo di ñu dajaloo nekk benn dank daal di jàkkaarloog majorité bii li dong moo leen mënoon may ndam vox populi moom dellusiwaat ci visite bi nga xamante ni Macky Sall na koo def ci diwaanu Touba yéenekaay bi xalif général des mu ngay mu ngi xam ne ci biir yéenekaay bi ne benn sabotage wet benn dem yoonam naka bugaan ngay dañuy defee ci grande coalition de di yeewee askan bi yéen kaay bi des ci taxawaayu coalition bi nga xamante ni Maître Abdoulaye Wade moo ko taxawal ne ca biir waa PDS CRD ak waa jot nañu nga ca biir waaye Thierno Alassane Sall moom nee na dootul fa taxawati ay réew mi ku ko wax dee opposition bi day gisuma leen mbaaw waa baax na bu subaak jàmm incha